dañ leen la justice sénégalaise ma leen wax cette justice là Barthélemy Diaz sera le candidat de Yewi Askan Wi bu soobee yàlla kenn candidat et nous gagnerons Dakar inshallah. Quel kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier de lambar lambari 10 ans dix ans nga yor ko dossier de lambar lambari ba nit déposé le lendemain nga naan da koy moi si j'étais Barthélemy du ma uyu yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañ am nañ dossier bind na def naa lu un euh, euh, euh, un juge defuñu ko bu ma ba déposé sama candidature suñ ma wooyee du ma wuyu ci demuma respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu belle personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral dinañu ko jaral jëla le ku mu neex nag nga toog fa leen sonk Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma ma naan incha allah macha allah defuma ko soo ma ëppee doole rey ma soo ma ëppee doole rey ma waaye je me défendrai te loolu rek moo fi des ak Macky Sall bu nak nag Barthélemy day wuy ji ngi wax toute la jeunesse sénégalaise lundi à la première heure ñep dañu dajé gungé ko ba tribunal bu fa kenn xaj parce que il est le candidat de Yewwi Askan Wi il est inshallah le futur maire de Dakar té duñu nangul lenn lu ko gàllankoor kon sama wax du gudd j'appelle toute la jeunesse sénégalaise tous les Sénégalais épris de justice nous devons faire face à ces forfaitures là élection nous devons nous compétir compétir le peuple tànn fenn foo xañ ci qui ramène ne tegul ci yoon nga xañ xañe fa élection foofu amu fa avons créer les conditions d'une victoire sans adversité Nous nag fu tout ko def dinañ jël tout suñuy matuwaay yépp pour faire élection bu mu fa am lépp dinañ ko assumer te man donc nous ñëpp jël une responsabilité parce que ces forfaitures avec la complicité de l'administration avec la complicité à venir de la justice sénégalaise le commandement des forces de l'ordre ànd ak les défendre d'exposer les leurs adversaires politiques